Alhaji Baldé at Boussa Diop at maa wax ak ñoom nangoo lamb bañ sifle moo leen boole moo leen taxale saako yi fekkiwul kenn yéen a fekk saako yi da koy ak président nga day xeex moom. waaw kooku ma xam ne day xeex moom. non xam nga ñii dañ ay classe am ay classe am dañ ko moo tax suñ koy jox booy ku ci nekk day daf lay won li ma la mënee ba kore nga koy daan. da duma. day duma waate. <laughs> laaj ko xale jàmm euh, euh, gën bi. Laurent Ndiago. eh xeex dóor Alliance Baldé dóor dañ ne Pire Baldé Baldé dóor. laa illallah mais Alliance Baldé moom li li xanaa da ngaa dencoon Alliance Baldé bu sedd waaw daa mën a bëre persal Alliance Baldé daanooti na Alliance Baldé daan nañ ko. laa illallah da ngaa daw takk moom da ngaa takk rek moom bu sedd daan na Alliance Alliance jugal Malick arbitre mi ngi koy defal Malick arbitre Malick da ngaa xam mi ngi koy illallah waaw Alliance Baldé mi lu ko daal saan eh, noonu baaxul Alliance Baldé oh Alliance Baldé xale nga jugal defar waatal xam na làmb ak sa kanam saan jugal nga defar waat na làmb ak sa kanam day saan oh Alliance Baldé il n'est pas jugal espoir a ngi noonu ki la daan war na daan ndax daan nga fi ku ne bëre nga ak ndaanaan lu ne waaye jugal garaawut garaawut jugal Alaas Bale jugal saan saan mu ngi dem